Bonjour, moi c'est Fatou Kamara. Je, travaille au bureau régional de la FIFA et basé à Dakar. Je suis chargée coordinatrice de projet. Euh, je couvre huit pays, dont, dont le Sénégal. Voilà, donc euh, nous sommes là dans le cadre euh, du suivi des travaux, des projets Forward, comme vous le savez, euh, avec le président Jani. nous avons lancé le programme Forward en 2016. Et l'objectif, c'est la promotion et le développement du football en Afrique et partout dans le monde. Et donc, comme je le disais tantôt, le Sénégal fait partie de mon portefeuille. Et ce projet, nous sommes venus le lancer le 8 août. Et Normalement, quand on lance un projet, il faut faire le suivi pour voir euh, comment les travaux évoluent. Et comme les travaux avaient accusé un peu de retard, bon, indépendamment de la volonté de, nous tous, notamment les conditions climatiques, et maintenant que les pluies ont cessé, euh, donc je suis là pour voir comment ça avance. Et donc d'après ce que je constate, j'ai été agréablement surprise quand même de voir qu'il y avait au, lancement, il y avait des, choses qui n'étaient pas prévues, et notamment la tribune qui est en construction avec les vestiaires, et sur, fond, sur financement de la fédération, et également le, siège de la Ligue. Donc, nous, on va, mettre, euh, on va installer la pelouse sur le fond de la FIFA. Donc ça veut dire que tout le monde s'engage, et notamment la, la, mairie, monsieur le maire, je le remercie au passage, la Fédération sénégalaise de football, et la FIFA. Donc euh, tout, le monde contribue, tout le monde s'engage, tout le monde s'est approprié du projet. Et ça serait bien d'avoir une belle pelouse avec euh, une nouvelle tribune et avec des vestiaires. Ça va permettre d'optimiser le jeu, notamment le nombre de matchs qu'on pourra jouer. Et également, il est prévu de revoir les lumières aussi pour qu'on puisse jouer nuitamment. Donc tout ça, ça améliore l'optimisation et de l'exploitation du terrain. Donc euh, je suis optimiste que les travaux vont avancer normalement maintenant et qu'on pourra et voilà, procéder à l'inauguration du terrain bientôt. En tout cas, nous sommes engagés aux côtés de la Fédération sénégalaise de football pour le développement du, football et ça passe par les infrastructures, euh, notamment les pelouses. Donc euh, j'exhorte tout le monde vraiment à continuer sur cette lancée pour que les délais prévus maintenant, on puisse le, respecter et procéder à l'inauguration de ce joyau qui va sûrement euh, voilà, aider à développer le football euh, à, à ici. Depuis 15 décembre, donc, euh, commencé nous. Nous avons fait des travaux nous avons waré euh liguey bi gëna metti nak ah, parce que le terrain est souffle, il y a yag fi bon euh, souf souf souf bi fi je m'excuse de la répétition euh, ci gannaawam bokk ah, ah, dafa latérite mais latérite bi ah, donc il fallait que nous décapions yépp ñu latérite pour ñu def couche bi ñu bi bon donc su loolu def ay ci terrain pour que ndox bañ a terrain Euh, suñu suñu paree loolu nag ñu doog ñu doog indi beneen latérite ah boo xam ne moom mooy gën a dëgër bi parce que ci kawam nañuy poser gazon bi. ñu gis ne jafe-jafe amoon na mais tey gis nañ ne bi door na naam Cees waay ñu ngi doon xalaat ne est-ce que dina moom du am finalement travaux yi may fàttali ne jafe-jafe amuloon ci tribune bi ah jafe-jafe amuloon ci tribune bi ah dañ doon euh, dañ doon defar. schéma hein, sur le plan technique parce que nous euh, xam nañ ko tribune dañuy recevoir ay nit Hein, donc nous ñuy recevoir dañu war en sécurité Hein, parce que les ci tribune mu daanu wala mu am leneen bon loolu moom kenn bugg ko ah donc il il fallait que sur le plan technique nous jël toutes les garanties techniques parce que ñun ñooy tabax tey mais loolu dañ ko fi bàyyi rek

Euh, dinañ jot stade bi defe naa. fii ak weer ak genn wàll. voilà fii ak weer ak genn wàll. Ah. Euh, déedéet du am piste d'athlétisme euh prévaruñ ko noonu parce que euh normalement léegi stade football la hein ah, fi keuru football la hein donc lépp lu def. Euh, parce que comme nous ngeen ko seetloo stade yi nga xamné ne football rek nañ fay def duñu def tribune sore trop euh, en terrain bi ndax mu am chaleur boobu quoi hein ah, ah, parce que ñu ngi yaakar ñun ñep mbas mi jógee fi nit ñi dellu ci tribune yi ah, donc waaw dañuy waaw euh, lumière mom dañ koy défarat mais vestiaire yi dañuy defar yu ay di ci gërëm ñi nga xamné ne ñoo fi teewal FIFA vraiment ñom jéego yi ñu def yëpp ngir may Thiès mu am stade bi ni mu ko bëggee waaye di gërëm waa fédération sénégalaise de football yi nga xam ne yenn yi ci yokk ñoom ñoo ci dugal seen i koppar ngir mu mën a ne waaye di gërëm tamit ci teewaayam euh, ki nga xamante ni moom mooy inspecteur départemental bu yore sport euh, te lépp lu ñuy def mu nekk suñu wet mais it di nuyu gërëm ki nga xam ne mooy délégué de quartier bi nga xam ne moo fi nekk euh, Euh, président qui euh, bi le mouvement nawetaan waye it yi nga xamné ne nañu fi ngir li intéressé ñoñu ñëpp kenn ku ci nek ma ngi koy gërëm ci ci taxawayam waye it di di di di gërëm ki nga xamné mom mom moy euh, Jo Sambou ndax mo nu fi togal ñun ñëpp euh mom dénk liggéey ci mu saytu waye mom la tamit ligue bi ligue bi yore te mu am wàll ci biir lii ñuy def moom mi moom yoroon na ko euh, kon xam na li ñuy def donc bu fekkee ne loolu mi ngi koy def te di ko def ci anam yi mu gën a rafete ñun mënuñ lu dul bëgg ci loolu waaye nag euh, di leen wax ne euh, li ñu fi indi woon tey jii mooy ànd ak waa FIFA ànd ak waa fédération bi pour ñëw xool liggéey bi fu mu toll te liñ ñu woon dal na suñu xel donte ca njëlbeen nga am na yu jotoon a yeexandi yooyu yëpp mujj na saafara am ci ba nga xam ne ñi ngi am yaakaar fii ak weer genn wàll loola yemb bu loola yembee euh, lépp loo xamante ni mbir mi laaj na ko ci wàllu gëstu ci wàllu xalaat ci yorin wi ak tëralin yeeg taxawaay bi bu boobaa ñu mottali ko ak jàmm waaye tey ji daal euh, sunu xel gën na dal ci ne euh, loo xam ne ndawi Thiès yi loo xam ne askanu cees loo xam ne même sportif yëpp yu dul nekkul cees ñi ngi ko yàggoon a soxla ndax stade Maniang Soumaré dafa am histoire dafa am lu mu représenté tey jii su fekkee ne ñu ngi koy def Euh, ba mu toll fii yaakaar bi day yokk tey jii ku ñuy wax Moussa Ndiaye mi ngi fii mhm. Moussa Ndiaye moom lañ daan wax Moussa Ndiaye il est l'heure bu nawetaan daan waaj jeex cinq minutes bu desee bu gars yi fëggee tribune bi mu taal caax yi xam nga tey ñoo ñëpp am na lu muy def ci ñoom que ñu ñëw fekkee lu mel ni yàlla na ko suñu borom àggale ak jàmm. monsieur euh, ñu bëri xamuñu ni que yow tamit jot bala travaux yi di ñëw liggéey nga liggéey bu mucc ayib parce que yombalal euh, fédération bi lu bari bari ci liggéey stade Maniang Sport defe naa ne ñu bëri mhm. dañ ko et que lëppoo ak fédération sénégalaise hmm. jaaree ko ci ligue de football bu Thiès ànd ci liggéey bi en amont balaa ñu yegg si fii xam nga xam nga luy suñu wàll en tant que surga waa <laughs> mooy bu waa bëggee dara te mu jaadu ñu jéem a seet nuñ koy fexee ba mu nekk te ñëpp xam nañ ne man balaa ma fi nekk maire teewuloon waa Thiès lii lañ bëggoon yàgg nañ ko bëgg amoon nañ yàgg nañ ko mébat am na sax Thiès waayu ci jéemoon dara mais def fi pelouse naturelle boo xam ne yàggul mhm. kon option bañu jëlone ñun ci départ dañ fi def synthétique japp nañ ba légui né mo gën léegi kon su féké né gis nañu ñoo xamné bu ñu lëkkaloo ak ñom mo am mu mëna nek té ñi ñu lëkkalool lëkkaloo wuñu ak ay privé yu joggé fenen dañoo lëkkaloo ñi yoré football ci Sénégal ak ci ci région bi ñom lañ lëkkalool pour mu mëna nek ndax mëno fi def lu football nak mm. mëno fi def lu nit ñi bëgg mm. donc lëkkaloo ko ak ñom déggoo ak ñom ba xéewal yi nga xamné ville bi amu ko xëy na amuñu ko ñu mën ko fee def ba nit ñi mën koo jariñoo yaakaar naa ne loolu mooy yoon wi te loolu moo waral ñu dugg ca loola leneen lu ci des bis bu ñu demee ba toll ci jamono mu am lu mu laaj lu war a laajaat ay xalaat ak laajaat ay tëralit mais ña fiy ñam fiy ñam fiy fekk ci askan ñam fiy fekk ci jamono boobu ci ndaw ñam fiy fekk ñu nekk ci kuréel yi bu boobaa comme ñun ni ñu ko defee tey jii ñoom bu boobaa it ñu jàngat seen jamono seet lañ fa war a def ndax ñi ko fi sampoon du woon ñun mm. waaye tey jii buñ koy defaraat ñun la fi dajeel tombé war rafet gaaf nag mais bu ëllëgee ku nekk la nga dajal yalla na doon lu baax nga seet noo koy améliorer. Mhm. Euh, ci benen xaaj bële peut-être léegi bu koy visiter sax journaliste yi mujj ñoon jot a yegg si mhm. ñu dem ko mhm. feene yaa ngi liggéey ak ligue de football euh, maître Pape Sidi Lo pour que mom mbébétam mu def ko maison du football c'est-à-dire que c'est social u ONCAV c'est social u ligue de football euh, sport travailliste ak yëpp donc loolu aussi tamit am na solo ñu wax ko fii ni yaa ngi liggéey loolu pour jox leen fa la ñu nekk. waaw xam nga Serigne Cheikh Al Maktoum danaan wax ne xam li xew moo gën bokk ci coow li xam nga ñu ci bëri wax bu nekk dégg nañ ko ci waaye ñoom xam nañ li ñu waxtaaneek ñoom. moo ñu fexe ba lañ fay def donte ci wàllu tur siège yu bi la. waaye ci wàllu jariñoo ak jëfandikoo. képp koo xam ne dangay ngay ci wàllu football bi da na doon sa kër. moo tax muy nekk maison du football bu ñu demee ba ca kanam nag. mu gën a ci yoon incha allah. jërëjëf euh, dañu ñëwoon rek euh, di xol si euh, visite des chantiers fii ci stade Maniang Soumaré nga xamné ne liggéey bi dooroon nañ ko depuis le mois de décembre ñu ñëwoon fi nak xol avec une délégation de la FIFA madame Camara mi nga xamné ñëw na représenter la FIFA di rappeler rek né projet bi projet FIFA Forward Le ñu and ci ak le maire de la ville de Thiès mais aussi la fédération sénégalaise de football ci bi visite bi nak gis ngeen ko li nga xamné dinañ ko retenir moy fi

kër football googu nag euh, siège ligue euh, siège ligue bu ties dina fa nek ndax fédération fay joxe ay siège au niveau des différentes ligues biñu xamé na ne am nañu espace bobu euh, dinañ fa def siège ligue bi mais ñom dañu bëgg def lu ëpp siège ligue bi moy indi fa li nga xamné mom lañu la ñuy football bi nga xamné ne dinañ ci gis sen bop muy corpo muy football nawetaan képp koy yëngatu ci mbirum football sa kër dina nek fi mu ñu tuddee ko maison du football. ci au delà de loolu nag bi ñu defee visite bi ba jeexal li nga xam ne daal tënk nañu ko tey jii fii ci stade Maniang Soumaré mooy liggéey bi door na euh, dina dem nag à pas de géant et que promesse bi mun nañ ko jàpp mooy euh, diggan euh, ci bu ñu demee ci première semaine mois avril dinañu livre stade bi livraison bi rek day fekk. Euh, gazon bi euh, yemb mais aussi day fekk turbine bi daal di pare mu nek une inauguration bo xamné sax for nañu ci weewu nak que fédération dina ci and ak FIFA ñom sen bop ñu ñëw fekkee euh, inauguration bi bu boobaa nak football bi mun a jolli ci stade mañang Soumaré bu Thiès.